jërëjëf trois 313 digital ak euh, saltige Fatou Ngom fu réew mi toll euh, alhamdulilah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi gërëm suñu wasila Seydi Aboubacar si di gërëm jëmm ju tedd ji muy ajaratu Fatou Ngom waxtaan ak moom yombul euh, jël ko yombul wax dëgg yàlla mën nañu wax ni sax audience bi xaw na jafe tuuti ndax par rapport ak sa tolluwaay ak clients yi nga xam ni yaa ngi faral di jëflanteeg ñoom dañuy ñëw nag ak yow fi réew mi toll Euh, ñu bàyyi la nga nuyoo mais li ñu war a waxtaanee yow ci temps yi ñett rek la euh, mooy euh, am na mbir yoo xam ne yaa ngi ko doon wax ci géej gi wax dëgg yàlla gis nañ ni biñ la laajee ci semaines yi passé ci quelques question dañ ñu wax nañu euh, dee bi des na ci ndaw ñi alors te gis nga li xew Fass booy ñëpp gis nañu ko alors euh, beneen bi ci topp euh, moom mooy ci wàllu dem bi mais dem bi dafa ñaari façon am na foo digle mais na foo xam ne diglewuloo ko xale yi nga xam ne ñu ngi ci jaar ci yoonu Nicaragua bi diggu yoonu Amérique am na tegtal yoonu jox yooyu moom jàpp nañu fii ci 313 muy kii boo xamante ne si di nga ko joxe directement ñëpp jël ko ci bi ci topp mooy nag Ousmane Sonko muccam wax dëgg yàlla Euh, metti na fan yi gis na la temps yi passé nga def benn entretien ba tuur ci ay xéewal malgré que metti na ak torturé bi fi mu jot a jaar kenn dil la wala du dil yooyu yëpp dina ci ñun ñu bàyyi la nga nuyoo d'abord ñu soog a ñëw ci waxtaan wi. waa asalaamaaleykum waa réew mi asalaamaaleykum waa saw télé bi nga xam ne ñoo ma invité. Mm-hmm. samay sët di samay doom. Mm-hmm. bañ naa ba soom nag waaye nii rek la ko yàlla dogale. Mm-hmm. boo dee yaay ñëpp moom da ngay tëddee njaaxaanaay. da mu ne ji jigéen astaghfirullah mm-hmm. mu ne boo dee yaayi seex da mm-hmm. ngay tëddee jaaxaanaay ma di leen siyaar di leen nuyu di mm-hmm. siyaar sama sëriñ sëñ mbay si Mansour di siyaar Tiwaawan di siyaar Touba di siyaar waa Njaasaan di siyaar waa Ñaseen di siyaar waa kër sama kër doomu ndey waa kër sëñ Ablaye Thiaw di leen siyaar di leen ñaanal jàmm yal na yàlla woyofal yan bi yal na yàlla bàyyi leen fi yal nañu yàlla gudd fan moo njaboot ki yépp di siyaar waa réew mi di leen ñaanal jàmm dëkk bii nga xam ne mooy Sénégal ak fu manti doon dans le monde ne ñépp am jàmm yal na nu yàlla defal jàmm te yàlla def fi ndox bu sedd guy alors jërëjëf ginnaaw bi nga nuyoo kër kilifa diine yi comme ni nga ko waxee euh, di di siyaare di wax ni ñëpp nag nañu préparé bés bi muy samedi li ñuy waajal sa Tiwaawoon lu waaye am na ca def ngay taalibe Serigne Babacar Sy lañ nga ci wax xanaa di leen xam ne sunu xel a ngi ci yéen mhm. sunu lépp a ngi ci yéen ndax yaay na sunu yaakaar tey ak ëllëg teyit it nag jumaa jooju nga xam ne dañu ko war a ubbi mhm. muy muy samedi jàmm lu ci waay man mhm. noo ngi ñaan lu ci waay am lu ci waay dugal rek yàlla na la yàlla fay yàlla lay fay waaw di ñaan nag képp ku ko man te man ko teewee yàlla na la fa yàlla yóbbu te nga war faa dem yàlla nañ ko teewee nun ñëpp te lu waaye am na ko fa dugal ci barke yonante barke Sëriñ Babacar d' accord euh, dinañ ñëw sax sa diggante ak Sëriñ Babacar si seenu jaar-jaar mhm. mais bala ñu ñëw ci sëñ Sonko eh, gis nga fan yi li xew euh, téye nañu ko actuellement li kenn xalaatul woon mhm. mu am ay révélation yoo xam ni daan nga ci wax ni lépp yàlla mooy sottil yàlla moo yor mbiram yàlla moo yor nguur. alors am na loo ñaanoon ndaw ñi gis nga li xew fan yii Sénégal. Mhm. Euh, fu ne taal nañu ko. réew maa ngi ñuul kukk te kenn xalaatul woon lii te amaana réew mi daloon nañ euh, lan ngay waxaat ndaw ñi et lan ngay waxit muccub Ousmane Sonko par rapport ak tamit ñi nga xam ne jàppoon nañu war nañu ko. waaw mhm. Ousmane Sonko li nga xam ne moom laay jëkk di wax mooy muñ. Mhm. tey dafa muñ. muñ na yaru na tey na waaye nag. na gën a muñ. ndax itam. lu yàlla rëdd ci jaam foog mu am mm-hmm. te lu yàlla wax mm-hmm. mooy am mm-hmm. ñun sunu bëgg-bëgg noo ko xam waaye yàlla moo xam ne muy def di ñaan yàlla sunu borom nag fee mu dugg métti na na métti na ma lool ba ci kanam yàlla métti na ñépp yal na ko fa yàlla génne jàmm mhm. ak mu jëm nag yàlla moo xam ëllëg mhm. ndax man xaw ma sama tey xaw ma sama ëllëg mhm. yàlla moo xam waaye li ñuy ñaan yàlla sunu borom daal yal na ko fa yàlla jëlee ci jàmm ak salaam te it nag du fa yàgg incha bi ci yàlla àndee d'accord euh, ci cadre du fa yàgg euh, dañ daan faral dégg ay waxtaanu ajaratu Fatou Ngom saltige euh, mu daan wax ni nguur d'accord yàlla moo ko yor dafa mel ni sa wax jooju tey dafa feeñ parce que tey jàpp nañ ñi euh, ak lu mën a xew xëy na ak xëccu gi ak nooteel gi est-ce que jàpp ñi nattul la boo xam ni lu war a jaar la ci moom ëllëg ba na muy doon dara fii. waaw mhm. ndax euh, lu mu doon rek nga jóge ci njaal benn mu neex. Mhm. na la leen a mujj ga du neex waaye nag nattu bi nga xam ne moom la ko yàlla sunu borom teg. Mhm. nattu ñëpp lay dal. su yem ñi gën ci euh, sunu mbindaaf yi ñoom la yàlla teg nattu. sàkkaatuma nun ñii dong. ndax ku seet. sëñ Touba mu daj ci géej gi. Mhm. sëñ Touba euh, Alaaji Maalik li mu daj. ak mhm. sëriñ su baax sépp nag. li mhm. ñu daj kenn ku ci nekk jaar nga ci nattu. sëñ Cheikh nu mu defoon. arrêté wuñu ko woon. fu mu mujj. sant yàlla te mooy yaakaar mooy sunu yaakaar. kon nag lii nattu la rek bu yàlla sunu borom teg. yàlla noon na bala ngaa dem am dara. da ngay sonn. coono bii nag yàlla na mujj yàlla na mujjee mbégte. incha allah dina am. xaw ma kañ lay doon xaw ma ma fekki xaw ma mu wute hmm. waaye bu soobee yàlla di nga dem te palais d'accord amin yàlla ko yàlla def donc bala ñuy ñëw ci ndaw ñi ba tey ba tey ci cadre Ousmane Sonko hmm. eh, jàpp nañ nit ni ay jamono dañ daan faral dégg say waxtaan nga naan euh, toog nga gis ko fu kawe <laughs> waaye fu kawe foofu tey ak fii mu mujjee tey jàpp nga ne xëy na loolu yoon yoon wi leeral la sa mbir li nga waxoon nattu yàlla fu ne la koy tege te nag bala nga bala nee nux nux rek danaa war war waaye bu nee war war rek day de mujjee nox nox ci ba ci jàmm lay mujj bànneex lay mujj gis naa ko fu sori te dina de ci kaw bu ci yàlla àndee ci nii ma ko gisee wallaahi dina toog ba sant yàlla oh, metti na de waaw ah, metti na waaye lii la yàlla dogal te lu metti ci kaw nii teg lay dal te yàlla ku mu bëgg na la teg nattu yàlla sunu borom ku mu bëgg rek nala teg nattu ok gis nga bukki bu reeree ba regg mm. day jooy looy jooy yow lekk nga ba regg li nga bëggoon am nga ko mu ne damaa xam ne suba day métti bu amee lu yi day daal di kontaan di fecc ne ko yow métti bi nga nekk ngay fecc mu ne waaw waaw ndax bu naqaree tey bu ëllëgee mu neex walaay Sonko muñal billaay dina neex di nga dem ba toog donkaasi gi jotaayu teraanga yal na ko yàlla def. ndeysaan d'accord euh, euh, mag ñi ndaw ñi ñëpp ko bëgg. ñëpp euh, waaye gis nañ ni xale yi ñëpp a ko jox bopp bala ñuy ñëw ci cadre tànki war donc gis nañ ñu ndaw ñi ñëpp jox nañ ko bopp. waaw et puis ñu jàpp ni xëy na bu jotee dina yomb waaye coow li dafa bari woon ci moom. est-ce que defut ay erreur yoo xam ni. jàpp nañ ñi ñu nekkoon ci ginnaawam ñoo ko ruube wala doon ko ruube tey ba ba li fekk ko ci. xanaa xamoon ne bëñ ree na waaye deretu ko laal. Hmm. bëñ ree na weex na waaye deretu ko laal. Hmm. nit a ngay ànd ak nit ngir di ko ruube ci suuf wala di ko war ci suuf te doo xam. kenn mënta xam ko ko bëgg ak ka bañ. waaye yàlla sunu borom mii dara tawul. Hmm. a ah, xam na te kay nekk ëllëg itam. yàlla wax na ko man toujours dama ne lu am rek yàlla ndax kenn mënul dara kenn xamul dara yàlla rek moo am lépp yàlla la mhm. lii yàlla tuddoon ci moom foog mu tëdd ko fa mu koy tëdd waaye yal na ko yàlla woyefal te yàlla delloosi ko ci biirub njabootam ci barke Seydina Mohamed euh, lii ko dal nag mhm. metti na ñëpp metti na ndaw metti na mag mhm. ku ko xam ak ku ko xamut yëpp metti na la doo ci sori mais lépp da ko wékk ci yàlla rek lépp nag dama ko wéet ci yàlla biir waxtaanam Euh, ajaratu faatu saltige lépp looy wax da nga koy wekk ci yàlla. yàlla la waaye bu ñu daan digg ay wax ñoo xam ne dañ daan profité naan les marabouts de sonkoo man maay sëriñam maay sëriñam. billaahi wallaahi du dugg kaso. wallaahi wataalaahi du dugg pour peek nit ñi pour dox ci seen maay te ñooñu loo leen di dénk. Ah. <laughs> dafa mel ni yàlla woon na leen boppam da ak lu mën a xew. xoolal looy def rek jaatal ci yàlla. Mhm. lu am yàlla borom réew mi foo mu toog yàllaa ko fi teg bis bu yàlla ne jeexal na day jeexal te day dem. ak ku fi manti doon nga di fi toog rek yàllaa la fa teg bu la fi yàlla tegu doo fi teg waaye toog naan maay sëriñam kenn du ko dugal maay sëriñ di ko tey mi ngi nii ci kaso bi nañ ko fa jële waa léegi na muy génne ah. di koy xoole ak lu ñu ko teg fi mu ne nii wax mu yegg rek yàlla la neex nan wéer lépp ci yàlla te xam ne lu sotti yàlla la ndeysaan waaw fompul parce que ñun ak yow bokkuñu quoi ñun ay xale lañ te yow màgget la d'accord ok léegi jàpp nga ni ñu doon wax sax bu fekkee ni tey ñoom seen wax fii la toll naan maay sëriñam ak kii naan nangam ak les bu de Sonko nañ dem jëli ko fa mu nekk nañ dem jëli ko loolu yëpp doxoon ci xelu ñu ñi la. képp peeg rek ak wax ndax lu yàlla nanguwul rek kenn du ci nangu kuy wax di fëgg sëb dañ ne mën a mën yow de yàlla la yàlla rek moo man kenn mënul ku dut yàlla nguur it kenn du ko joxe ku dut yàlla. Mhm. yàllaay joxe nguur. lépp ñu ànd yaa ngi yaakaar dara nag defe na ndax moom ngay xëccu di ko moom yal na la la jik lu waaye di bëgg lu ne yal na jik na la jik d'accord ok am na ñuy wax nii président de la république ah waruñ ci woon sax yegg que dafa liggéey waa réew mi xam ne na tekk fi mu ne kenn mënul sa bopp dara wala wekkoo ko foofu yow. yàlla laa ko wekk wax mu yegg yàlla la ne. parce que yàq doo ko digal kenn. ngoog xam nga noo ngi nooyi. waaw danoo xam bi noo ajee nooyi gi dinañ dellu seen déet. yàlla la. te doo digal kenn naan ko xaytaal du ma digal kenn ne ko yaa ko def. musiba la nit nit nit na jàkk nit ne ko. Hmm. lii def ko nangam. Hmm. te yàlla nekk yàlla neexut lu neexut yàlla doo am bu nu ko wér kenn. te taal doo ko digal kenn comme ni xale yi daan def di manifester di génn di taal di ko def toog naa sukk jébbalu ne xale yi ma baale leen ak raamal leen ngir yàlla ngeen bàyyil ngeen di def ndax lu ngeen yàq ëllëg di ngeen ko sonn ndax yéenay mujj réew mi ëllëg kon nan defar te bañ a yàq kon doo ko wékk ci ay président dafa liggéey jeune nit ñi ba mënuñoo bouger yow da nga koy wékk que ni toog bi sax bañ a yàq lu baax la parce que gis nga li xew barki démb fi nga xam ne moo yaraax benn biis bu doon daw yëpp ay nit ñu sànn ci cocktail molotov ba mu tàkk tàkk gi mu tàkk rey ci ñaari xale ñaari nit mu dee nekk déggu mu doon loo xam ni kenn commencé wuñ ko woon xaleel Sénégal kon dafa mel ni ajaratu Fatou Ngom saltige ñi ngay tere pour ñu bañ a génn di yàq conséquences yaa ngi nii lii lay jur après loolu la de loolu de mooy conséquence yi mhm. ndax xam nga ni tam mhm. ka xëyee këram di liggéeyi pour dem ci njabootam mhm. nga taal biis bakkanam kanam yem foofa ay jooju àq loolu koy waxee yàlla sunu borom ndax rey yàlla rek ko moom bakkan boobee wadd nag ci biir yàq la te nag loo xam ne nag def nga ko ba tey ko. Mhm. soo fekkee ca kanam yàlla di nga ko fekk di nga xam yàlla dinga ko fekk si incha allah du yàgg. yàlla sunu borom lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg di nga toog ci kanamam. kon nan def loo xam ne bu nu fa fekkee. Hmm. bu nu ko fa fekkee du ñu am gàcce du ñu am tax ndax kat. Hmm. àjjanaay gàcce am na de. ok parce que dañu la daan génn nga naan Sénégal li ko wër ndaw ñi dañoo dañoo am ay nawle Sénégal. kon euh, ndaw ñi nga xam ne tey ñu ngi doon génn di riposte di xeex naam dañ doon xeex seen àq ak seen yelleef. ak par <laughs> rapport ak li nga xam ni mooy injustice waaye jàpp nga ni boobu pexe baaxul la nga waxoon ca Sen TV waxoon ko TFM waxaat ko RTS moom ngay waxaat. moom ngay waxaat fii pexe yooyu baaxul nañ xool beneen pexe parce que Sénégal dañoo am ay nawle. am ay nawle te ñi nu wéer di réew mi nga xam ne danoo wéer. Mm. fii mu ne Sénégal sax bu ñu yeboo ne wax dëgg yàlla jaratuñu danku mbuum. Mm-hmm. ndax ñi nga xam ne ñoo nu wér. Mm. xeeb nañu nu ndax yàq gu métti te lii du dara. Mm. nguur gii du dara fi la nu koy ba. lu mu manti doon rek fi la nu koy bàyyi wuy ji suñu boroom yàlla dara lu la topp lu juróom-ñaari mètre perkal ak xetu libère kon nag nanu nanu jéem a muñ nanu jéem a jiital yërmande nan wàññi yàq bi ak rey bi. yàlla moom rey de. te fa mu nekk jàpp nga ni sax même buñ ko bàyyi woon fa mu nekk sax mu nekk. Mhm. su bokkoon sax da leen di gagné parce que yàlla moo ko jox ndaw ñi ba pare. ñoo ñu def ko am ba pare am na ndaw am na mag. moom ñëpp a ko bëgg. Mhm. fee mu nekk nii. Mhm. wallaay bu ñu génn tam yàlla xam na ne moom la muy am am na ko ba noppi ndax ñëpp ko bëgg. amul ku ko bañ ñëpp a ko bëgg. yàllaa ko def nag yàlla moo koy def nit. d'accord kay falu nag yàlla moo xam. waaye bul defee ndax doole mën na la ko may wala fit man na la ko may yàlla sunu borom moo koy maye. Oh. nguur ndeysaan yàlla na ko yàlla te boole ca ñëwi may. d' accord kon dañu la gis nga def benn entretien def ba tuuri xéewal jooy tudd ci moom ngir yàlla euh, ndax yërmaane bi nga am ci moom ndax wax dëgg yàlla gis nga ko ak diinam naam politique dafa am lu mu làmboo mhm. waaye dañuy gis it nga dox joxe ay réponse daal di ne du fa yàgg. Euh, ci lan nga ko wékk maanaam da nga gis ci moom muccam bu gaaw wala lan da nga du fa yàgg. du yàgg dama gis ci ne rek. Ah. yàlla suñu borom moo ko bind te natt bi yàlla dund na ko ci moom. Mm-hmm. mitti nanu nag naqariñ ko mm-hmm. nu moom ni mu ko naqaree naqaree ni bokkam mm-hmm. nu ko raw la nu mittee man mii toog fii nu ko raw laa ko mittee dama ko bëgg te yàlla tax waaye nag li yàlla sunu borom tudd kenn mënu koo bañ yàlla tudd na ko mënta ñàkk waaye nag na ko def ne ni rek luy jaar jàll la rek da jàpp ni am na ay tegtal sax sarax yoo xam ni. war na ko ay mbokkam war nañ ko def nañ ko def. ak képp ku ko bëgg man de toujours ba mu duggee ba sunu jonni tey chaque jour ma génneel ko sarax. bañ ko téye ba tey bañ ko téye ba tey chaque jour ma génneel ko sarax. ñaan ci yàlla. ba tey laa mujj génne juróomi kaamil yóbbu ko ca jumaa ja. ndeysaan te yëgu ci dara. biñ ko téye ba tey yaa ngi génne sarax. yàllaa ko def yàllaa ko tudd mënta ñàkk. d'accord ok lu ñuy tuddee baatu bu wor mooy gis nañ ay vidéo yu circulé États-Unis quartier euh, bi ñu naan New York euh, Khalifa Sall dem na fa am benn xale boo xam ni dafa influenceur la tudd yor compte YouTube am di def ay vidéo mhm. fekk Khalifa fi mu doon defee émission mu ne ko nangeen ngeen def mu ne salaamaaleykum ñu ne ko maaleykum salaam mu ne lan moo tax ngeen wor Sonko yow xalifa Sall mu mel ni korog am na yoo ci waxoon euh, li wër Sonko dafa mel ni dañ ko boy boycotté dañ ko seetaan dañ ko sacrifié. waaw nga. Hmm. xam nga Khalifa Sall mu fa mu tëdd la kiy tëddoon. Mhm. fa mu tëddoon la kiy tëdd. bu ko neexee daw ndax loolu la ragal na ne bu waxee ñu def ko fa mu ko defaatoon benn. Mhm. mais ñi ko wër am na yoo waxoon. ko ko wër ah, ah. ñi nga xam ne ñoom la àndal di wax da ndoom mhm. am na ñoo xam ne dañ koo wor. dëgg la dañ ko boycotté. waaw dañ ko boycotté. feeñ na ci ñoom maa ngi ànd ak yow. ba noppi te yéenewu ma la dara. lii maa ngi li may yéene saa bopp laay wutal ndax ku jóg rek yaa ngi wutal sa bopp waaye nag ah du noonu de nañu xam ne yàlla mooy maye nañu xam ne lu am yàlla nañu xam ne kenn mënul dara ku dut yàlla. te mbooloo mi yàlla moom jox na ko ko de. mbooloo yàlla may na ko ko ba pare ndax liggéeyum ndey la ndeyam ku nangu la. xaw ma naam ñeneen ñi liggéey nañ sax waaye ku nekk ak la ko ñëpp yàlla boole ku nekk la la ku nekk liggéeyum ndey. Hmm. parce que liggéeyum ndey indi Macky fii mu toog dem naa ba dëkkam dem naa ba Fatick dem ba ca këram jàkkaarloog yaayam nii ko ma fekk mu toog ci néeg ci ci perong bi. Hmm. ci werandaat maa ngi ko fekk foofu mu toog mu nuyoo muy mitin ba fa ba mu fa jëkk a def moom mag yi. d'accord ok euh, Sonko comme ni ñu ko waxee nii ñu jeexal foofu daal di ñëw nag ci sa wàllu xam-xam ak wàllu géej gi. Euh, mun naa wax ni sax mun nañ njëkkee ci géej gi ñëw ci xam-xam bi ndax nag am na lu la yàlla dénk ñu naan la saltige Fatou Ngom mais Sonko ba tey comme ni nga ko waxee yaa ngi génn ay sarax yoo xam ni jàpp nga ni biñ ko téye ba tey yaa ngi koy defar rek ñaan yàlla rek tax. yàlla xam na ko de. Ah defuma ko nit ngistal mhm. defuma ko pour kenn xam ko. Mhm. waaye maa ngi koy def te yàlla tax. d'accord te di ko ñaanal yët fu mu nag. Mhm. yal na yàlla may ko xolu muñ ba mu génn ak jàmm ci barke. amiin d'accord te am naa ragal ci ne daal. yaakaar naa du fa jag du fa yàgg. yàlla nag moo yore yëpp. Mm-hmm. waaw d'accord alors euh, war bi it comme ni nga ko waxee jàpp nga ni ñi ko jege ñëpp dañ ko doon defal ndëgg sërëx parce que bi affaire bi amee dañoo gis ni. ñenn ñi sax tasaaroo nañ. nangoo tuñoo sax génn wax. mu kenn ñi ngooti war a dara daraan am ñu def conférence de presse ñoom ñëpp ñu dajaloo. fi mu ne nii waxatuñ ku ne yaa ngi ci sur le terrain di campagnal sa bopp. war la war la ndëgg sërëx moom nañu ko def dëggantaan waaye na bàyyi lépp ci loxo yàlla te xam ne rek yàlla la lii ko dal yàlla la d'accord te dina ci génn jàmm bu soobee yàlla gerte. ok na bàyyi lépp ci loxo yàlla. Ah. li ko dal yàlla la. te dina génn ak jàmm ak salaam nee na it ni mu ngi koy defal ay sarax yoo xam ni. Mhm. wax dëgg yàlla saa yu xëyee mu ngi ko koy yaakaare yàlla rek di ko ko ñaanal te yàlla rek. te xam ni bu ma demee loo ci gis dafay jeex te it mu ngi waaj dem Tiwaawoon defal ko fa ay ñaan donc euh, beneen bi ñuy ñëw mooy wax dëgg yàlla ajaratu faatu bu ñu delluwaatee ci ginnaaw ci télévision yi nga jaaroon am na loo doon wax ci géej gi. moo xam soit bu nawet jotee nee nga am na ñu bëri jàpp nañ ñi ne ci lay géej gi di dal te ci lay gën a garaaw koo xamul te nee nga géej dafay laaj yool li nga bi nga waxee loolu am trois cent personnes yu dee maara day tali nga waxaat huit personnes dee wakaam nga waxaat am lu xewaat encore face booy te ba léegi dafa mel ni nanguñu laa déglu parce que yaa ngi jox ay tegtalu ay sarax lan mooy problème bi parce que dafa mel ni dafa nga jàpp ni yool gi ngay wax noonu yàlla mi mi ngi am yool gi mu ngi am hmm. lu ma la naa xale yi nañu moytu géej rek ba tey hmm. ndax géej amul bànqaas amul jàppam amul fen fu mu jàpp ndox la rek te xamoo fu mu yem waaw nga di ca xaru di ca dem loolu xaru la hmm. dem gi ci xale yi dem nii ngeen defee ne ndax dem gi boo ci dee xaru la nan moytu ndox mi nañu sàkk sarax ñii nga xam ne dañoo nekk piit am na ñu dem ci géej gi te dem di suux ci ndox mi ndax dañuy dem di sangu waaw ci ñaari côté yëpp nga waxee ñaari côté yëpp laa waxee nag nañu may nañu may jàmm. Mhm. tey sàkk sarax tey ñaan sunu borom mii nga xam ne moo am tey maye. ñu di ko ñaan wér ak wérle gudd fante moytu ndox mi ndax waxal naa leen ko. Mhm. ba tey noon naa leen dee yi des na. Hmm? nañu moytu ndox mi dee yi des na de tey génne sarax. yal nañu ci yàlla musal musal suñu njaboot musal bépp jullit ñu ci yàlla musal musal suñu njaboot mais njaboot googee nag foofu la taxaw parce gis nañ ni ñu bari xëy na peut mhm. euh, euh, ñu a ngi jàpp ni am na ñuy dugg waaye yenn xarul parce que nee nga amul bànqaas te kenn xamul fu mu yem Ah, lu yàlla sunu tut man day wax dëgg yàlla duma ca yeble ko cay dem man de sama waa kër ba xëcc nañ ba ton ne dañ ciy dem ba yebaluma kenn ku toog nag te yàlla woola fa dinga nga dem ndax ku yàlla woo rek di nga dem waaye nag yaa ngi dem di wuti lëf yàlla nanga ko fekkee looy bëgg lu ne yàlla nay sa njariñ yàlla nay sa njiglaay kon nag nañu moytu géej gi tey sàkk sarax fu ñu toll man de chaque jour maa ngi sàkk sarax ajjuma ju jot chaque jour maa ngi jox ajjuma ju jot du liggéey lut dem di sàkk sarax ci géej gi wallaahi ndax damaa njaboot. te nee nga des ndax njaboot yëpp sama njaboot te nee nga des samay sët samay doom doo nga ci nekk kon su ma sañoon jàmm rek la am yal na yàlla def jàmm ci Sénégal. te nee nga des na. waaw des na de. kon nañ ko moytu. nañ ko moytu de tey sàkk sarax. xale yi bàyyeeguñ gaal yi ba léegi de. bàyyeeguñ déggu ma ne ndox dem gi des na ndox mi wallaay ndox mi des na xaw ma xabtal la xaw ma lu ñu téyut la xaw ma reewande. la ilaha illallah. loolu yëpp daf ci am. ndax la ngay wuti yàlla nañ sa njëgle ma yow yaa ngi dem da ngay loo terale ndey ak baay ak sa bopp nga bëgg toogal fii xaar yàlla bu la yàlla ne dina dem yàlla lay yoot ba nga am lu la yóbbu oh. waaye nga ne nag aw ma lu ma yóbbu damay dem par force di jaar sa alal jaral la jaay sa loo am matériel fay ko 300 millions boo ko jëndoon marchandise toog fii di ci liggéey lee nga lijjanti loo paase dem mais dem gi am na ñoo xam ne dañuy bëgg depuis quand kañ nga ñëw ak yooyu wala découvrir dëkk yi waaw waaw waaw diw tikki jooju dong ngeen ci bëgg képp tiitar boobu ngeen ci bëgg waaye nañ toog xaar yàlla 300000 wala 400000 nga di ko fay ci gaal te xamoo di nga yeggam déet loolu laa la bàyyi leen ko bàyyi leen ko te toog xaar yàlla yàllaa ngi ñëw 400000 yow boo ko jëndee woon ab saabu mbaa nga jënde ko loo neen lu mu manti doon boo ko jaayee di ko dajale léegi nga am la yóbbu oh d'accord euh, léegi nga am lu la yóbbu euh, géej gi moom doo tàyyi di ci wax wax dëgg yàlla euh, ñi la xam yàgg nga wax ci wàllu géej gi ñi la xam yàgg nga wax ci wàllu ndox yi na xale yi nañ ko moytu terewul li ngay wax di def sax ay semaine say tegtal moom maara deytaale ñi lay déglu ku ci dégg ñu wala ñu topp say wax gis nañ ni du def ay diir nga gis ni message amaat na am na nañu dee donc loolu moom te yaa ngi koy wax te chaque nawet da ngay génn gis nañ ni tamit ñu jeexale foofu ñëw ci wàllu xam-xam mooy nawet bi accident yi day bari te ku ci mel ni ajaratu faatu euh, accident yi tamit yaa ngi ciy joxe ay tegtal parce que nee nga euh, yenn yi reewaande la mais am na yoo xam ni tayeef la am na yoo xam ni rek jinne yi ñooy jub te donc euh, chauffeur bu mën a doon ak ku yabi bakkan ay nit war ngaa wuti kaaraange. war ngaa wuti kaaraange war ngaa wuti la musal war nga yàq sàkk sarax. war nga am yar. war nga am yar war a tey. Mhm. waaye jóge ci àll ba naan ba ne tat teg ci kaw biis. Mhm. doo xam fooy jaar. mën ngaa daw dal ci kaw man ngaa saaraan mën ngaa mbëkk màndi man nga toog nelawoo nga wëlbati ko bët bu añu reer boo fanaanee dow bu bët set da ngay toog muñ nelaw mbaa nga dow ba guddi nga nelaw waaye léeg-léeg nga gis accident boo xam ne ci nelaw la jóge léeg-léeg nga gis accident boo xam ne nit ka day màndi ba ne tat léeg-léeg nga gis ku fab xale bu jigéen teg ci wetam di bëgg di dawal bëgg di wuyu téléphone bëgg di dawal yow ndax dangaa xam la ciy fekk wala ngay dawal jël boolu maafe wala boolu ceeb teg ci table de bord bi naan da ngay añ na da añ dafa rafet bët yëpp yemul am na gàllaaj yoo xam ne sax bët bi ci tege day toj même bu xamul dara bët bi ca tege toj kon nag nañu jéem a ragal tey ragal yàlla ragal yëpp nag ragal yàlla ci gën te uti kaaraange te uti kaaraange waaw chauffeur day am kaaraange parce que am na tegtal yi ngeen daan faral di joxe am na garab yoo xam ne mhm. ndoom ma goo xam ne boo ko takkee mhm. wallaay doo accidenté sida lu mu mitti mitti mitti ci mucc ak jàmm. Mhm. am na saar yoo xam ne boo ko defee di ko tari. Mhm. ci sa baar tifli ko sa loxo téye sa baar. Mhm. walaay da ngay dem ci jàmm ñëw ci jàmm ak ak teey akub yar nag. d'accord am na sax benn ñaan goo xam ne baaxee na ko. Euh, mooy inna anzalnaahu fukk ak juróom 15. boo ko yabee ci oto wala ngay yëg ci avion foo dem di nga ñëwaat. waaw waaw loolu moom wax dëgg yàlla daal na ci wax ba teg baati ya fàll xeeg naa si. xul walaawu allahu samat mhm. yem ci samat mhm. dugg nañu ci samat noo ko oto bi ak ci dugg mhm. wallaay mucc ak jàmm wàcc ak jàmm rek oh macha allah loolu moo ko baaxee dina am tax ñaar yu baaxee xale yi ci yoonu Nicaragua bi mooy euh, xale yi nga xam ne ñi ngi jàpp yoon wi di jël yoonu suuf si bala ñuy dugg nag ci wàllu li nga xam ne moo intéressé nit ñi euh, li waraloon nga demoon États-Unis waaye xale yi nga xam ne ñi ngi jël yoonu suuf si ah euh, di dem yaa ngi leen doon jox ay tegtal dugub mboq gerte ñebbe ak lan lépp luy sax ci suuf daal. lépp luy sax ci suuf. nañ ko war di saraxe. képp koo xam ne mu ngi jaar ci yoonu suuf bi naan mi ngi dugg Amérique. luy sax ci suuf rek génne ko. d'accord dugub gerte mboq bësi. Mhm. Euh, ñebe même ñaam bi sax ak ñebe. ok lépp war nañ koy génne sarax. lu ci nekk rek da koy génne juróom-ñaar juróom-ñaar saraxe ko. comme yaa ngi jaar ci suuf. Mhm. seetal li nga xam ne moom la suuf di tax nag suuf yàllaa ko yàllaa ko daganal. Mhm. yàllaa ko barkeel. gëm yàlla nag weesu jël sa bari dugub. tuur ko ci suuf mën nga cee am lupp loolu. d'accord ok képp koo xam ne jël nga yoonu Nigro Goar bi ci ñu def leen ko saltige Fatou Ngom nee na parce que gis nañ ni xale yu bari ñu ngi dugg foofu. Mhm. léegi képp ku ciy jaar. mun nga génne dugub mboq gerte ñebe basi ak gerte ak ñambi ah. lépp loo xam ne day sax ci suuf nga saraxe ko bu dee sa doom mi ngi ciy dem ah. nee na su jaaree ci yoon bi kenn du ko téye moom nag wax dëgg yàlla su ngeen gisee mu woon ay tegtalu saraxam saay-saay yi ci laxasu waaye amoon na ay bagage yu bari yoo xam ni danaan def ay émission di waxtaane di joxe ay tegtal di dimbali xale yi di dimbali couple yi di dimbali képp ko am problème ba ci ñu am problème bu këyit loolu moom say affaire la mm-hmm. léegi nag ñu ñëw ci point bi nga xam ne moo am solo daal di tëj émission bi mooy ci wàllu xam-xam parce que duñ la seet si te duñ waxtaane yow li nga xam ne moom nga dond ci say waajur ci say maam mm-hmm. ci benn bu ndaw mu gàtt dañuy ah, ajaratu Fatou Ngom saltige li la wër yëpp ay ñaankat lañ mm-hmm. lépp luy sa famille ay ñaankat lañ ba ci Ablaye Ngom bi nekk Touba xalimaam du laal suuf yéen bokk ndeeg bàyyi saraka te sax ci yow mais li ñuy wax mooy maanaam ginnaaw dina ñëw ci tournée bi nga demoon États-Unis euh, lan mooy rab maanaam ran nan noo ko doonoo parce que euh, am na ay lenn ci say cër loo xam ni jàpp nañ ni téewoon na ko 30 ans. Ah, waaw ndono gi. ñu teg nga ñëw ci. ci ndono gi sama maam maama ko daan def waaye nag ak rab rabit nag ñu ci bari gëmuñu ko ak seytaane te ku ne amul rek ku ne seytaane amul booy ba daw ko. Mm-hmm. seytaane la rab. boo juddoo da nga koy judduwaale moo xam bu baax nga moo xam beneen ba benn rab nag bonut ndax rab boo ci nekk ànd na naak saraxam d'accord mais avant loolu tudd nga sa maam nga ñëw ci ndono gi sama ndonool maam mhm. li mu daan faj mhm. mooy rab li mu daan faj mooy jigéen ju taxaw couple boo xam ne dañuy ànd bëggante lool te ñaari waxtu mënuñu ko wax toog waxtaan te ku ci génn sa morom di tiit jaaxle Mm-hmm. ngir bëgg laa gis waaye ku ci ñëw jàkkaarloo rek mm-hmm. rab dox sa digganteeg moom ba du ñu am jàmm mm-hmm. loolu yi dafa am lépp rab la sa nag lee indi doono ngi waaw kay ci lañ bëggoon nga ñëw ci ku mel ne ñu xam kan mooy ajaratu Fatou Ngom li muy wax lu mu maîtriser la ci lu ndaw rek euh, parce que jaar-jaar ji bu dafa am solo muy seet ñaar dërëm la daan seete sa maam ñaar dërëm léget ak sunguf tappetab dëwlin booba ceeb amul bu ñu masaa am ngénte dugub la ñuy wal togg ko ay cere bomb di ko ngénte booba ceeb amul dara amul lu dul dugub yàgg na yàgg na de mhm. ab sikket walaw nag booba nag fanweeri dërëm lay jar fanweer am na sax yu koy yées ay ñaar fukk fukk ak juróom yépp nag daana ko jar waaye léegi nag juróom fukki junni sax bu baax mënatoo ko ci am mhm. looloo tax ba man foofee ma ko doon ne ci sama nga xam ne bu la jox bu la tegtalee ay saraxam mhm. nga génne saraxe bu ci yàlla àndee soo génnee saraxe du la laaj dara ba nga fab sa doom teg ci koolal ba tey man ci loolu laa sukkandiku képp koo xam ne ñëw nga ci man ma di la faj ci affaire rab wala jëkkër walla doom wala affaire rab. Hmm. bala nga maa fay danga nga ma dem ba gis li nga bëgg. waaye ci kaw loolu nag bu ma la xoolalee ba gis sa sarax nga génne sarax. d'accord loolu ñu bëri xam nañ ko ci ajarul faatu moom mais bala ñuy ñëw ci yow rek foofu la ñuy jeexalee émission bi. Hmm. Euh, sa waajur bari na ay turandoo de. bëri ay turandoo trop. faj na ay junni junni doomu aadama. wallaay man mii li ma am ciy tërandoo Europe sax laa ëpp turatoo tubaab yi sax dañ may tudde doom tudde nañu ma ba tudde ma doom ji toog di ko nàmpal nii. d'accord mais bi lay affaire yi dugg teewu la woon jàpp la woon. bi ma arab yi dugg. waaw <laughs> ci feebar la ma jëlee woon. Mhm. bopp bi métti guddeeg bëccëg mujj mu wàcc ci tànk xam nga ne la naa juróom-ñetteet. laa tëdd feebar juróom-ñetteet bi fukkeet ak juróom-benn ma dof juróom-ñetteet. wallaahi barke sëñ ma tëdd ba guddi gént booba ma ab géntu ma sax damaa tëdd ba guddi mel ni damay peccentaan ma maa ngi xool waaye xool bi day nelaw. mooy ngi jëlee maam ne ma. Faat ma ne ah ma ne ma Faat Diop ma ma ne ma Faat Diop ma ne ah jël lii ma ne ko lii nu mu ne ma geesul ma geesul mu di ay pitaaw yu ñu boole xorom ak kaaneeg dugub ak piso ma ne yàlla bu ma ko jël man kay du ma jël lii seen dof googu man bu leen ma ci boole ne war a ji dem mu ne ma. doo ñëw jël ko ma ne ko déedéet mu ne ma dina la di boo ko jëlutee di nga ko jël ma dem nu teg ci lu mat fukki fan ak juróom ma xëy dem la grosse jënd fa xorom ñëw di ko jaay marché ci aroy damay dem bay jéggi tali ba sili yoon ba walla fekk ñu rëdd fa cofab dugub cofab gerte ay cofab dugub cofab puso kaani xorom ñu def ko fam nag pittaaw yu bari sotti ko ci digg bi ma romb ko di dem ba daal di sëgg di lal sama mbubb na waseet foppitaaw yëpp def ci sama kii mbay sama doom ne ma yaay booy lii bu ko jël lii ab liggéey la ma ne ko sama maa ma ko jox bi te dama ko yóbbu loolu mooy pétaaw yi nga xam ne moom laa yor. ba fii ma ne d' accord foofu la ñuy taxaw ci euh, ndono gi dinañ ñëwaat ci yow loolu semaine prochaine bu fekkee ni yegg nañu yow ci plateau yi direct yi ñu war a def yow. Mhm. waaye loolu dafa mel ni dafay firndeel ni rek rab am na. Ah, rab foofu daal foofu rek loolu rek ngay taxaw. rab am na de. rab ak am. Mhm. dangay ngay toog ba yàgg di waxtaan nii sax rab de la ah waxal nangam. est-ce que. waaw rab dafa am rab lu am la. Hmm. ku juddu rek judduwaale nga rab muy góor muy jigéen muy tubaab muy nit ko ñuul. d'accord léegi ci côté jigéen ñi nga xam ne taxaw nañu. Hmm. maanaam ci côté ëmb yi. léegi nag ci foofu la ñuy duggee ci rab yi. Euh, nan la leen def soit ñaari couple yi juboo wala ku jigéen ki day jékk saa yi di merte kenn du ko def dara bu sëyee mu tuuru réglam bi di changé jàpp nga ni signes yooyu tant que nit kaa ngi koy am du mën a jël ëmb. tant yaa ngi def boo ànd ak sa jëkkër mu tuuru say daal rab bee koy tuur mhm. ngir bañ nga am ci moom doom mhm. léeg-léeg mu funkil say ween ba mu diis ba nga mel ne koy ëmb sa ngay mel ni koy jafte sam xel di teey biir bi jonk jëm kaw ñu ne daa ëmb bu ñu la séenee ne kii daa ëmb te dara mhm. doom amu fa raba ko def Mm-hmm. rab lu ne lay def nit. ni ko la seytaane. Mm-hmm. di duggee ci nit. Mm-hmm. noonu la rab duggee ci nit noonu la mel. d'accord seytaane nag nuroo wut ak rab ndax li tax seytaane seytaane ngelaw lay def di dugg nit waaye rab moom da koy judduwaale. rab da koy judduwaale. waaw ok euh, ci kow judduwaale boobu noonu su da lay yàqal wala mu lay protéger di la defaral. waaw xam nga rab bu la jàppee dëgg ku la liggéey du la jàpp. ci kaw boo ko neexalee. di génne ay saraxam yi mu lay def. loola waaye liggéey mu day lu ci kaw lu la jàpp. su la meree nag lu la gaañ du la def nara day toog ne di la seetaan lu ñu la mënti def mu toog di la seetaan ba nga sonn. d' accord mais am na ñoo xam ne mënuñoo dëkk kenn ku leen laal ñu mer fi ñu toll seen xol di tàng seen fut di toog benn place et puis euh, di changer seen créeru règle si jigéen ñi laa ñëw de ñëw guma ci góor ñi de maanaam duñ jubóog sax seen jëkkër yi. mu ko foo leen fekk dañuy tàng jër dafa mel ni loolu ay si ñu rab. di préparé nag sa jëkkër mu leer na yow nam nga ko loolu yaa ngi koy lépp loo xam ne neex na sa jëkkër def nga ko waaye bu ne salaamaaleykum dootoo ko bëgg a gis. si ñu rab la. si ñu rab la. waaw. d' accord et noonu la te te. di nga toog di waxtaan ak sa jëkkër ba yàgg ngeen suppi ko xuloo te da ngeen doon waxtaan rab jaxase leen ba ngeen xuloo ci biir poubelle bi. loolu yëpp si ñu rab la loolu yëpp si ñu rab la. waaw changement couleur règle yi tant que ngi am kooku du mënta jël ëmb. déedéet ndax yow. Mhm. jigéen bu ko xamante ne règle mu ngi ñëw normalement. Mhm. normalement te rab nekku ca day ëmb. Mm-hmm. waaye bu ci rab nekkee mm-hmm. dina sensé sa kuróor régal mm-hmm. bu ci rab nekkee dina téye sa régal léegi nga gis koo xam ne day am ñaar fukki at mbaa fukki at ak nangam rek régalam dootu ko téye raba ko téye mu taxaw ok loolu raba koy def tànk nag sa régal a ngi taxaw doo mën a am doom d'accord bu fekkee dafa am koo xam ne dafa am kis wala fibrome kooku dañ koy jox garab mu di ko naan mu koy saw ba mu jeex tàkk buy saw di nga gis couleur saw mi ni muy mel boo ko seetloo. Hmm. couleur saw bi da ngay xam ne du nuroog saw ma nga daan saw. booba li kii bi moo koy seeyal ci biir nga di ko saw waaye nag loolu xam mu ñu koy jox mu di ko naan mu da koy saw ba mu set wicc bu setee doom tëdd ba ndax fa doom war a tëdd fa la kisi di tëdd wala euh, fibro d'accord bu ko sawee ba mu jeex tàkk nag bu fa jógee doom man faa tëdd waaye tànk mu nga fa doom du fa mën a tëdd mi ngi wax lu mu xam ndax ku bari turandoo la lu ñu mën a seede ci moom. Ah. bala ñuy tàggoo mi ngi wax lu mu xam ndax duñ ci sori parce que tegtal yi mu ci mën a joxe ci jigéen ñi taxaw dafa bari. waaye benn point rek la ñuy ñëw soog a ñëw ci góor ñi ñëw ci wàllu koy joxe sarax bi tëj émission bi bi ñuy ñëw mooy ci côté ba tey jigéen ñi. Mhm. am na lu doon faral di wax ci wàllu planning yi yan conséquences lay indi. planning moom digaluma ko kenn soo juroon tey bés bi dellu si nga jur sax waruloo planning ko waaye nag xale yi dañoo bañ a boot bañ a jur bañ a sonn moo tax ñuy def planique te planique mësula baax mm-hmm. day seeyal say nen benn doo wér ndax mititu biir ngay àndal sa régal day tëju xamuñu nag xale yi xamuñu moo tax ñu di ko def ndax nooflaay waaye amul nooflaay de léeg-léeg nga gis sax ku ko def ba pare dem di ko dindiwaat après régal dindi ko ba taxaw laa ilaha illallah yàlla ne la comme dangaa bëgg dem di planique mm. man mi maamala planique ngay ñaan ci yàlla ba borom dindi ko rab a koy def rab dina ko def waaye bàyyi leen planique bi toujours maa ngi naa bàyyi leen planique baaxul. d'accord da nga planique dindi ko sa régal gën a tëju ca ngay gën a wéradi ndax jigéen bu jurul rek du wér. d'accord toujours mu ngi hôpital. d'accord ba tey li nga faj ci ay nit bari nañ wax dëgg yàlla bari nga ay turandoo. waaw euh, beneen point bi ci ginnaaw planique bi kon ki koy dégg bàyyi ko ndax ay musuma lay jur te day seeyali nen. mais nee nga jigéen bu nekk tamit ci biir sëy da war a moytu. di jëflante góor gu nekkul sa borom kër. yaa dafa am de boo ëmbee ku sa boroom kër ak ku mu manti doon góor gu manti doon dangaa fiir même jigéen daa fiir te boo amee rab bu fiir boo ëmbee góor geneen ku sa jëkkër ne nikk sa tiwu jara dina tuuru boo toogee ci lal boo xam ne du sab lal dina tuuru yu ci bari day moo waral ngay gis koo xam ne day faju ba noppi di mooy doom du fa taxaw soow boo ko wayalee te sa baaraam jógu ci du way mu ndox rek lay doon. la ilaha boo am boo toogee di sëy yemal ci sa jëkkër moom laay digal ñu ne. yemal ci sa jëkkër. d' accord soow rek loxo jógut du way. d' accord léeg ngay faj kenn yëf yi yàgg lool ci moom du sotti léeg-léeg ngay faj kenn nag du def benn weer mu jël ëmb wala ñaar. waaw mais léeg-léeg ngay faj nit koo xam ni mun na toog lu yàgg affaire am day dëgër. Mhm. kooku rab bu soxor la wala lii ngay wax si ñii koy indi. maanaam si ñooy dinañ ko dal ndax yow yaa ngi ñëw di faju am na ñoo xam ne sax amuñu jëkkër te dañuy faj loolu mais nag dama leen ne. faj nga fi nit mu ànd ak nit mu lar na la kii du jëkkëram yow. carrément ma wax ko ko. la illaahi te kooku dara ñëw di faj si doom. ma ne la Ameth ma ne ko kii du jëkkëram de ki mu àndal du jëkkëram a nga ci kër ga. mu ne ma ay maam Ngom bul wax loolu ma ne ko maa ko gis dafa am man su ma nee jàkk sa maarug ji xam ne ci yow. la illaahi illallah. te dégg na ko duma ma la faj que ki nga àndal du sa jëkkër. sa jëkkër. te tànk yaa ngi mooy doom du taxaw tànk yaa ngi mooy sa doom du taxaw. d'accord léeg-léeg nga faju nag amoo doom ñu naa ki ma faj faje mënul maa nangam déedéet soow bu ca loxo jógut du way. yaa ngi dem ànd ak sa jëkkër ba tuppe dem àndaat ak geneen góor mu sutti ko. d'accord dañu gis ni tegtalum ajaratu Fatou Ngom saltige ñu bëri da leen faj na leen. dooma fay bàyyil ba am doom. waaye sarax yi nga xam ne moom la sarawaan di laaj génn ko soit yow nga génneel ko sa bopp. wala ma génne ko ci samay tuur. waaw lu tax nga ni doo fayeeku. lu tax du ma ko fayeeku sama maam da ko daan def. ku muy fay dana laa booba sama maam ñaar dërëm lay seete bu la seetalee wax la say sarax nga génneel ko sarax yi bis booy fay tappetab diwlin dégg nga mooy walaatu diwlin ak kilo ceeb moom ko ko daan fay aku nag te booba nag fanweeri dërëm lay jaar fukki dërëm ak juróom. ci booba jamono ci jooyee jamono. Mhm. man sama maam nee ne ba ma juddoo. Mhm. ñetti fiftin laa man dërëm ak fiftin nee na ci la jënd na ak jëndam xar xottil ci sama yaay mhm. xotti ci ñëpp ñu solu ci moom mu xotti ci tubay duubal set duubal mbasin yooyu xewoon bu jëkk ñaar fukki meetar ci la xotti tubay ak caa def ko jenn caaya caaya ñor booba moo xam ci ñetti dërëm dërëm ak fiftin booba wute naag tey booba wute naag tey waaw booba wute naag tey léegi boo yore fukki junni doo ci mën a am mbubb mu baax. loola nga topp ba léegi moo tax doo. fayee ko kenn waaye boo amee doom ci ngay soog a fay. boo amee doom nag ba teg sa doom sa kaw lal. Uh-huh. ameel nga ma nangam nang ma ko fay. d'accord léegi soo ma ko fayut it. dikkal ci man ne ma wax dëgg yàlla li nga defal ma gis naa ko waaye damaa yoragut. bu boobaa maa moom su ma ma neexee may la. maa la ko wax ma neexee ne la fay ma. waaw waaw waaye am na ñoo xam ne dama leen di faj sax ñu nëbbu bañ maa fay waaye man ba tey du loolu man yàlla nañu yóbbaale sama àq rek te ma bañ a yóbbaale àq nit. jërëjëf amiin yaa rabbal d'accord euh, côté góor ñi tuuti rek nga tëjee foofu ñu ñëw ci lay tëj euh, côté góor ñi gis nga tamit góor goo xam ne gel bu mu àndal tey bàyyi ko Euh, këyit booy lijjanti du sotti xale bu jigéen boo waxal bu la waatee nga ne ko waaye may ma sama jàmm waaye ah daan la woo après dikke ko bu la vocaalee nga saago ko déglu rek góor ñi fu bari nañ fi de ndax am na ñuy ci suuf waaye am na góor ñoo xam ne mënuñoo fexe ba am couple bu yàgg am na góor ñoo xam ne mënuñoo fexe fa leen fekk nag dañuy foowee seen bopp góor gi foowee boppam danañ ci ñëw rab la mais góor ñi nga xam ni mënuñoo fexe ba am gel bu yàgg loo ci xam rab ak jikkoy gileem ku ñu jotal saaga la bala waaw gileem xam nga lu moo hmm. boo sexee ci garab gi di yootu geneen looloo jikkee juleem yaa ngi sax garab gi yaa ngi sëgg di dagg waaye yaa ngay seetuwaat keneen garab goo xool pour mën caa dagge looloo jikkee juleem d'accord léeg-léeg tam hmm. nit nekk ak nit day xëye xëy wan ko ginnaaw mbaa mu xëye xëy wan la ginnaaw loolu rab a koy def rab a koy def waaw ku góor tamit day am jabaru rab ni jigéen di amee faru rab waaw te ni jigéen di fiiree jëkkëram noonu la rab di fiiree jabaram góor noonu lay fiiree jabaram noonu la ci kër jabari rab di fiiree jëkkër wala nga am jabar sax sa jabar soxla la guddi nga ko may ma damaa sonn tey tëdd féete ne dem après di ba pare li ma jaaxal foyee sa bopp wala nga dem ànd ak beneen gel moo la gën a ñëw sa jabar soxla la nga bañ loolu c'est loolu c'est dangereux loolu rab la ah. rab a koy def de laa ilaha da koy rab koy def jabar soxla la nga bañ génn foye ci génn foye sa bopp wala nga génn seeti beneen gel ànd um, jaral na la nga jox ko loo am sëyeeg moom. mu ci yow de bi dafa am ah. daa am de ci lu wér. ak a xam rab d'accord léegi rab dañ koy faj wala dañ koy neexal mu dem. rab wala danga koy bàyyi danga koy dàq. déedéet rab kenn ko dàq ci borom ndax borom rab dëgg liggéey mënu koo jàpp ku am rab dëgg liggéey mënu koo jàpp te nga di ko neexal loo ko def mu dellu ci sa kaw te lu mu yóot ci jot waaye léeg-léeg nga am nag rab di ko bañ keroog la la rab bi gën a ñuuxal keroog la la gën a mën a yàqal waaye nga am sa rab li mu bëgg nga di ko def di ko sàkk sarax di ko defal li mu bëgg léegi kenn mënu laa liggéey ba jàppale te loo yootu ñaare jot ko. d' bala ngay tëj couple yi nga xam ne duñ juboo manaam euh, tamit euh, yooyu yëpp tey spécial rab la ñuy waxtaanee parce que li nekk ci yow bari na euh, ci résumé góor ñi nga xam ni seen nox dafa oyof am na ñaari mbir yu muy liggéey benn poudre boo xam ne da nga koy boole ak di ko naan kooku soo koy naan day defar sa infection ñaar fukki plante ak ñaar lañ ko liggéeyee 22 plantes en même temps dafay rafax dafay raxax sa naq day dindi infection doo mës a amee infection ba pare booy tur ndox dangay gis ne day weex tàll parce que mi ngi raxas ñaareel bi. mooy day defar sa man maniw booy sëy ak sa soxna maniw bi day am doole mooy ci affaire faj yooyu parce que moom bu lay faj day boole ñaari côté yëpp. Mhm. ñetteel bi mooy non seulement di nga ànd ak sa soxna lu yàgg te sa bopp ñaareel bi te booy jot sa bopp da ngay yëg loolu daf ci am solo. pomade yi am na pomade yoo xam ne du ko wane fii. waaye pomade yi pour wàllu góor ñi la ñi nga xam ne dañoo bëgg di yokk seen awra ndax rab day delloo awra de. waaw rab day delloo awra. Mhm. ni muy téye ndox di ko soppi. Mhm. ba mu doon ndox mu ne xale woyof dootu mën a am doom rab koy def d' accord muy pommade yoo xam ne da ko ciy diw du ko mën a wax kilifa la mais yow ku góor ki soo ko ciy diw day yokk sa awra ba pare da koy dijjal da koy dëgëral day tax day defar siditu awra bi ok loolu lañ ci doon résumé euh, góor ñi nga xam ni dañoo am problème rab yëpp dégg ngeen lim ci wax waaye bala ñuy tëj euh, comme li ñu ko waxee njariñu sarax ci wàllu kayit wàllu soxla wàllu tukki wàllu ñuy diggéey fii ñu dàq la lépp soxla boo mën a am rek dañoo gis ne ay saraxu faatu faatu ngoom dafa baax njariñu sarax ki koy def ak ki ko ñàkk def ki koy def lan la koy jural ci lu baax ki ko ñàkk def lan la ko mën a indil. yàqal ko lu bari lu mu yaakaar mu tas lu mu am mu yàqu fu mu ko dugal mu yàqu waaye ki ñu koy digal mu di ko def. Mhm. te ki mu koy jox defu ko te yàlla defu ko. Mhm. yàllaa nga koy gis ndax te ëllëg dina ko fay ku ñu digal sarax. Mhm. lu mu manti doon rek na ko génne sarax. nga am soxla war a def sa sarax defoo ko. say affaire day tëju. day tëgër ndax naa sarax bii la sarax laaj. ñu wax la ko nga bañ koo def da lay tëj léeg-léeg nga gis koo xam ne digal nañ ko sarax mu war koo def bëgg koo mën a def te du ko mën a def rabbaay bañ moo koy téye. la ilaha illallah hmm. di lijjanti xaalis xaalis bi mënut a mat. mu tëla raba koy def mu ngi mel ni nii rek man damaa bëgg a tuuru ji béréb sangam bés sangam. Hmm. billaahi di nga wër ba sonn te doo mën a dem loo yaakaar de rab bi day bañ. ah da nga koy da nga may publicité di ma weer doo am dara loo ñëw ci man rab da koy def. d'accord li ci bëri dafa bëri lan ngay tàggoo parce que euh, li nekk ci yow bari na rab bi dinañ ko yaatalaat semaine prochaine parce que lii mu waxtaan nii rek société la thème la boo xam ne dinañ ci ñëw incha allahu taala yoo xam ni képp koo xam ni bëgg nga ko woo après dinañ dem plateau 313. ñi nekk bitim réew ak ñi nekk Sénégal ñi am pour problème mu rab ñëpp wax dëgg yàlla ak tamit ñi ko war a def ñiy ñaan te waru ñoo ñaan donc loolu it ñu arrêté donc lan ngay tàggoo. parce que li nekk ci yow dafa bari te li ñu war a waxtaanee bari na. di ñaan ci réew mi jàmm di ñaan yàlla xéewal yu ne gan nawet bi ñëw ci jàmm nu dem ba yey wóor wa yàlla bu nu rep yàlla bu nu reppale yal na yàlla may nu gudd fan ànd ak wér yàlla tuur ci réew mi jàmm di ñaanal suñu sëriñ su baax yi nga xam ne mhm. ginnaaw yàlla ak yonti montee réew mi tàkk xale yi nag maa ngi leen di ñaan ba tey la ma leen daan ñaan bu mhm. jaree ma sukk raam tuuba leen ba mhm. tey maa ngi koy ñaanaat ba tey dal leen àndal akuk dal akuk tey te moytu géej gi lii rek laa leen di ñaan jërë ngeen